sama xol dafa fees lool ginnaaw ba ma jàkkaarloo ak yéen ñii di wax ak yéen ndax ci jamono ju nga xam ne maa ngi waajal jébbal lenge yi nga xam ne moom lañ ma dénkoon. ñu faloon ko ilimaanu jëwrin yi ci weeru septembre ci atum 2022 Amadou Ba candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci jongante falum jiitu réew bu atum 2024 joxe na lenge yi ay waxtu rek gannaaw bu ñu dooree campagne électorale bi. tey jii nag dama bëgg a fësal sama jàppandal ak sama solidarité ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall di président de la République ci li nga xam ne moo gën a wér te ñu gën koo confirmer. njiitu réewum Sénégal tànnoon jëwrin gi yor wàllum intérieur ci gouvernement bi weesu a ngir mu mën a wëyal liggéey bi ci bopp gouvernement bi. waaw yow ilimaanu jëwriñ ji dama la bëggoon wax rek ne gis naa li nga xam ne mooy sa liggéey te daan ci inspiré wu liggéey liggéey bu euh, mucc ay ayib bis ni ki léegi euh, moom mooy woyal liggéey bi ca biir primature loole mu war koo amal cay waxtu yi nga xam ne ni coow li bëri na ci wàllum jongante falum jiitu réew mi. nekk nañu dëkk bu naat dëkk bu nga xam ne ñu bëri ñu ngi xëccu jëm ci ñun ak ñi nga xam ne sax ñooy jaayum gerte maanaam ñoo xam ne tamit ña nga bàyyi koo tugal waaye ci jamono ji nga xam ne ñu ngi waajal exploitation pétrole ak gaz te daañu ñaan suñu borom ngir rek mu may ñu kàttan ak doole waaye tamit gëm gëm gu nga xam ne daañu fexe rek. ba kenn duñu jéppi ci fàttali jiitu réew mu Sénégal dafa dissoudre woon gouvernement bi ba pare fal Sidiki mu doon juróomeelu ilimaani jëwriñ ci nguuru Macky Sall